booy moroon la moo la wan ginnaaw calumbeer moo nekk door doora door waar booy moroon gaar na seeraas toj na tojul mu tojaat ko toj na kaa leen jege si leen ma wax ak yéen maay suufle moo leen di boole tamit lii la nangu lii bañ ku ku ku amul wax na laaj suuf boy na booy muroon pare nga nee ko taxawal ni jaga sil la ko wax paranga ci paranga nga nee na waaw suuf leen na Thialmer am na lu mu sànni booy muroon jël ab perkaal ngemboo ko moom dimanche 22 janvier 2023 Thialmer bu tour war te yigiri Junior mu muroon bu Garnier Seras nga lewaatoo nga ñaar Caly Mber ak Boy Maroon ña nga laato Caly Mber ak Boy Maroon Caly Mber ak Boy Maroon ña nga liwaato Caly Mber ak Boy Maroon ña nga liwaato Caly Mber door na dooraat door dooraat ma ngay door dóor na ko aray dal ma ngay dóor ma ngay dóor ma ngay dóor mam Calambeer dóore métti na dóor na bal silam wedoo woon dañ na ma ngay dóoraat dóor na ko dóori métti eh booy moroon fayu na booy moroon door na Calambeer door ña ngay xeex ña ngay xeex ñaar dooral ma dóor métti na de ña ngay dóor dooral dóoral xeex xeex ña ngay xeex booy moroon na ngay dóor Calambeer fàq na ko daanu na Calambeer daanu na Calimère daanu na Boy Maron dóor na faax ko mu daanu la Boy Maron la fa Cheikh de Pikine arbitre yëkkati na loxoom le vainqueur de shut down.